décidé au plaisir de vous retrouver aujourd'hui vendredi ñu am mbégte toog fii ak suñu invité ginnaaw bañ leen gunge lundi ba dans 13 minutes de vérité noonu également lañ koy defee ci week-end bi euh, dans Sénégal visité lépp rek euh, pour votre plaisir waaye itam ànd ak suñu invité décortique ensemble li gën a fës ci actualité bi dinañ fi waxtaane euh, vote motion de censure bi nga xamante ni ki dem kon amal à l'Assemblée nationale déposée par l'opposition plus précisément le groupe parlementaire yeewu askan bi mujj ñu ca am li nga xamante ni moom moo di ndam ndax jotuñoo récolté les 83 voix requis dinañ ci ñëw ak suñu invité mais également ñëw ak moom euh, par rapport ak li gën a fës ci actualité bi te xam nga ni euh, bokk na ci euh, plainte bi maam moo bi kii nga xamante ni moo di Mame Mbaye Niang déposé contre Ousmane Sonko ba démb Ousmane Sonko wuy ji dikk dinañ ci ñëw ak suñu invité l'arrestation également des deux députés du PUR dinañ ci ñëw confrontation bi nekk ci diggante Sonko ak Sarr dinañ ci revenir également vu que depuis lors amuñu woon mbégte jënd ak suñu invité donc occasion la ngeen ñu rebondir un tout petit peu ramassé di gën a fës ci actualité bi ni ki semaine bi ñu wees ak fan yee ñu génn major Kandji mooy sama invité major maa ngi lay bi invitation bi mhm. del si waat fii chaque fois comme euh, ce le contrat moral quoi mhm. ñu ñëw chaque fois di débattre ak yéen parce mhm. que euh, moom la donc dara mënta tax duñ ñëw fii di wax actualité e puis continuer notre euh, point de vue sur la vie politique Sénégal. et faire même politique au Sénégal. Mhm. namoon nañ la nag. na maa la raw gën naa fi temps yëpp dama doon dem feneen et puis ak ah. bi aussi. Mhm. je voyage beaucoup à l'intérieur parfois du mhm. pays. am na solo mais major comme ni bi li ci gën a fës xam nga ni euh, bokk na ci euh, ni ki euh, keroog passage Amadou Ba élimaanu jëwriñ assemblée nationale pour mu amal ab déclaration politique générale Euh, gis nga bu mu ko defee ba noppi opposition bi lañu ci toftal rawatina groupe parlementaire yi askan bi ni daal euh, amuñu satisfaction di ci discours am euh, sentiruñ ci tamit également premier ministre sentiruñ tamit également taxawaayam waaye tam gisuñu ni jël en compte en réalité jafe-jafe askan bi tax ba ñu daal di déposer ak motion de censure censure à rappeler que nag lu ni mel gëju na am depuis weeru décembre atum 1962 ci jamonoy Mamadou Dia oui c'est comme ça depuis 1962 motion de censure amoon na et chaque fois on voit en Europe par exemple en France avec euh, la nouvelle premier ministre là. Mm -hmm. ils avaient vu des dépenses et affaire motion de censure mais xam nga aussi benn booy def benn métier wala nga jël benn option politique il faut nga jàng ci tuuti wala ñu former ci tuuti nga xam logique xam nga ni ko di waxee nee na lépp loo gis projet booy def ci àdduna day da ngay respecter ce qu'on appelle la euh, taxonomie mooy day am euh, logique da nga koy idéaliser et puis contextualiser ko mais xam nga li am Sénégal ci affaire motion de censure boobu kenn mësut koo gis ci àdduna et malheureusement euh, même opinion internationale bi dañuy gis ne ñi ko def matuñu doon c'est-à-dire c'est une carence intellectuelle carence intellectuelle la objectivité politique la xam nga pour la simple cause c'est quoi xam nga Sénégal dafa amatul woon premier ministre xam nga Sénégal toog na ay deux ans je pense amul premier ministre. Mm-hmm. depuis Abdoulaye Boun donc on avait une gestion directe managée par le président de la République boo xam dafa jox tous les ministres un pouvoir régalien conformément aux dispositions de loi bi nga xam ne mooy réglementer l'exécution du budget jox la mission missions qu'ils ont respectées normalement et ça marchait ñu jékki-jékki Covid 19 bi ñëw. nous impose une crise économique une crise sanitaire. Mm-hmm. la limite. Mm-hmm. comprends nga li ma mhm. président la jël ko en compte. Mhm. bi mu ko jëlee euh, avec les ministres et tout le monde il a vu que maintenant il y avait deux réactivités deux réactions il y a une réaction endogène et une réaction exogène si on suit bien. Mhm. la réaction endogène il faut gérer l'intérieur du pays il faut organiser le pays il faut lutter contre la pandémie il faut donner des vivres de soudure ah il faut faire de sorte que les sociétés n'aillent pas en crise en liquidation pour, pour défaut de paiement il faut il faut il faut et pour ce faire l'autorité suprême de l'État doit aller vers les bailleurs vers les partenaires pour pouvoir supporter sur le plan économique de la vie au bout de la non productivité interne c'est-à-dire que ñu nekk bi di fi liggéey ak industrie dañuy dem ba un moment mënatuñ produire en cela malheureusement la guerre en Ukraine et que vous savez que les, la, la, la base de notre nourriture en partie et voire même le gaz en Europe et beaucoup de facteurs incidentiels ce que l'on appelle la récession comme la crise économique de 1929 c'est-à-dire il faut qu'il y ait une récession le Sénégal est un pays qui importe tout pratiquement donc ñun on subit le coût de l'inflation c'est qu'on appelle la norme de péréquation et de stabilisation des prix yoo xam ne depuis Europe lañ koy norme parce que ñun on ne maîtrise plus ça parce que en tant que importateur léegi il a supposé que maintenant nonobstant la compétence individuelle des ministères au Sénégal bu nekk am na mission mais il fallait qu'il y ait un coordinateur pour qu'il puisse aller lui répondre sur le plan international aux invitations pour étudier ce qu'il fallait faire sur la crise pour annuler la crise économique qui résulte de la guerre en Ukraine et de la Covid-19, qu'il faut aller chercher, vous répondre à des bailleurs de fonds. Euh, il faut proposer mhm. des projets au Sénégal. Il faut que dem xool les partenaires stratégiques pour que ñu jàppale leen sur la politique interne et stratégique. Et puis il faut que aussi que les institutions étatiques marchent, que les nit ñi di lekk nit ñi naan école yi di ko ni di jàngale. moom ne ñoom su ma la dégg nga wax ni yaa ngi bëgg a expliquer tout petit peu gis-gis bi position bi am nii centre ñu trop gouvernement bi. xamul non dañoo xamul def dañ doon saboté man à mon avis. kon da jàpp ni dañoo yàq. saboté la woon rek non il avec la démocratie. quand tu joues avec la démocratie tu récoltes nañ ko parce que pourquoi ñu récolté bu doon waa APR rek ñoo bañ a voté on peut dire ñoom Doudou Wade xam ni état Doudou dafa xam état am na moral yoo xam ne Doudou Wade du ci yegg am na loo xam. mais justement ci sax euh, laataa ñu ñëw euh, ci ci ci taxawaay waa Wallu euh, déjà yow personnellement bi nga déggee ni déposé nañu ab motion de censure la Amadou Ba qui vient Amadou Ba de politique générale dafa wuti moyen yi n'a jamais été vu dans un pays mais il suffit pas on a fait un budget de six mille quatre cent quarante-quatre milliards déjà en prenant compte tout, en subventionnant tout, en réglant le bourse des élèves, en réglant les détails de santé. En, euh, auparavant, le président... Mais effectivement, tu l'as, le budget solution, il y a le budget... Non, budget, le budget solution, budget de développement. Là. Non, budget solution, nous avons voté à l'Assemblée. Non, mais budget, moi, je sais que le plan Yokati, il mon état, Sénégal, ça se déroule normalement. D'après, les populations sont devenues importantes. Vous population yi nga xam ne ñoo war a liggéeyal seen bopp dundal seen bopp mais Sénégal état Sénégal rek état buy subventionné ceeb diwlin location courant ndox mais Sénégal rek la am. d' accord mais ci loolu solution bi ñu prévoir ko pour l' année 2023 jàpp nga ni à hauteur de 4000 milliards et quelques. jàpp nga nga ni mën na mën na solutionné problème bi mais na yi askan bi am. jamono ji mais askan boo xam ne aussi ne produit pas. jafe ci wàllu lekk jafe ci wàllu dëkk euh, xam nga jafe ci wàllu inondation. non ban jafe-jafe amu fi inondation. c'est un changement climatique ça a tué partout en te ñu loolu. ñun ñu am boo nee jafe-jafe am xanaa gisu mais mais day am jafe-jafe li ñuy dund ci wàllu métier madame xam nga jafe-jafe boo ko dugal ci bopp sénégalais yi noonu te expliqué woo ko. jafe-jafe dans un pays mooy pays boo xam day am économique di kii boo xam day résulter par exemple de de de de l'État jafe-jafe yi suñu société c'est quoi. y a l'exode rural d'abord muy facteur bu ñuy nangu. kenn bayatul ñëpp a ngi jaay ndaamaraas ci autoroute yi ñëpp a ngi dawal saret di dafa naa am expliqué la rek les gens ne sont pas éligibles même en matière de formation et de compétences professionnelles c'est-à-dire Sénégal xam nga ban problème lañ nous avons l'exode rural boo xam ne si ça résulte d'abord de que changement climatique dafa amoon au Sénégal depuis 77 mu am ce qu'on appelle des sécheresses suivez-moi bien mm-hmm. bi mu amee des sécheresses mm-hmm. les populations commencé déplacé wu mooy bu Youssou daan maral gi na ñu continuer dem bi ñuy demaat 77 ñu dem 78 jëm 80 chemin de fer suivez-moi bien des chemins de fer du Sénégal bi daan daw ba dëkk yëpp yëpp au Sénégal ñu jékki ñu arrêté ko sans raison ñun ñu arrêté ko sans raison parce que et malgré que bi daan daw sur le plan social di fixer population yi parce que Sénégal dafa installé woon Dakar Xombal Bambey Diourbel Guinguinéo nangam ñëpp dëkk ci raay bi y avait tout y avait des polices des gendarmeries des hôpitaux des écoles et tout nga dem Kaolack y avait tout ñu nga dem Saint-Louis ak Linguère le pays était bien structuré le pays a été déstructuré à l'époque avec la cessation des activités de la régie des chemins de fer léegi il y a eu l'avènement des personne à Touba les gens se sont algorithmés vers Touba a toutes les zones et que Touba n'a pas de zone arable amul loo fay béy amul loo fay réglé réew ñëpp mënuñu jaay ak di tappale boobu ko ñëpp demaat mbuur mbuur kenn béyul kenn yokkul ñu demaat jawbe muy troisième hypothèse muy jawbe Sénégal xamuñ sax population yi dugg mooy Touba lañ dugg mbuur jawbe le reste ñëw Dakar ak naa bi cela veut dire quoi on ne produit plus ñun lu ñuy dundee te léegi les activités bénignes là yi ñu nii nga xam da ngay ñëw di def ay minutage ak yooyu ne peut pas autosuffire les Sénégalais pour dal leen parce que Sénégal y a ce qu'on appelle des familles nombreuses et tout le monde ne travaille pas kenn lay liggéey jox ñëpp léegi nag si la personne bi nga xam ne seule elle travaille pour jox ñëpp léegi amul lu mu leen jox hmm. mais y a problème mais là-bas on a vu que l'État du Sénégal pour annuler cette hypothèse cette condition de désastre hmm. sorte que il a subventionné les, les, produits de première nécessité, il a augmenté les salaires, il a pris en compte euh, sur le plan sanitaire beaucoup, beaucoup de choses. Même le plan Sésame là au Sénégal, ça existe, tant que dans les autres pays, c'est des assurances qui marchent. Les Sénégalais ne s'assurent même pas en euh, maladie et santé. Les Sénégalais sont assurés pour, pour ainsi chez lui. Tu as que tout ça a été. Et le développement, le, le développement fondamental d'un pays, l'autoroute du développement dans un pays d'accord mais xam nga mais major xam nga eh, fu ne nii yaa ngi nekk di étudier facteurs yi nga xamante moom moo ñu conduire ci jafe-jafe yi askan bi di mais ci kaw jafe-jafe yooyu également dafa am bu nga xamante ni euh, tout récemment euh, cour des comptes fësal nañ ko mu ñeel fond force covid xamante ni détourné nañ ci ay milliards. waaw loolu la ko waxee waaw est-ce que lu ni mel tamit du gën dugal dëkk bi ci guut. non non ah kaa ma expliqué jafe-jafe. kaa ma expliqué ba di am. effectivement ci jamono ji nga xam ne ñaa ngi nekk ci jàkkaarloo. non xam nga xam nga xam nga xam nga c'est la c'est une presse qui parle des conclusions xam nga conclusion de droit yi ak conclusion yooyu autorité suprême lañ koy jox mu xool et vérifier xam nga dafa am fait ak droit xam nga quand il fan ngay basé wu rek pour comprendre li fond de euh, qu'est-ce gars yi bëgg a wax c'est que celui qui a payé sans faire de chèque tu te rappelles sans sans faire de sans payer par chèque il a payé par numéraire bu dee def nga gestion dugg ci ay administration moo nekkee chef wala dara tu es entre la le, le, le marteau et le quoi de Damoclès xam nga pourquoi je je théorise comme ça parce que man du ma am habitude de accuser nit d'habitude damay damay dem jusqu'au bout xam nga yàlla et l' da nga doon war def dara comprendre ko faute dañ dire de faire ça comme ça tu l'as pas fait bokkut ak détournement et et enrichissement illicite donc trois yooyu ngay yëkkatiyee euh, xam nga cour des comptes c' la cour de vérification des comptes man j'ai fait le tribunal à l'époque y avait des juridictions et je m' je je je m'intéresse chaque fois à ce qu'il faisait xam nga des fois lu ëpp ci affaire gestion état dañ naan la li nga jox lu tax nga jox ko mais d'habitude les mënuñoo yenu un milliard deux milliards rek dem comprendre nga euh, système bi. Hmm. c'est-à-dire c'est des fautes de gestion. parce que ce monsieur là dans l'urgence on te dit demain regarde-moi bien c'est important de le dire à la télé. dañ la demain il faut aller à Touba il faut faire des masques il faut faire ceci cela cela donc yow demain loolu du nekk ci loo xam ne da ngay def protocole. ak chèque dana ay moments yoo xam ne boo joxee waa ji chèque léegi ci su ngoon gi moom danaa la aw ma bi pour li ma la war a fournir duñ si auto fournir seen bopp donc bref que c' est des choses que nous qui doivent être comme vous le dites mm. pour que la transparence soit comprise mm. mais xam nga quand quelqu'un dit d'un seul coup que on n'est pas dans le dossier on n'a pas vu le rapport final on n'a pas tout vu mais man li ma xam mais le Cour des comptes wax foo koy rapport bi interprétation la nañ cee sukkandiku non da ñu koy wax yor ñu kayit bi fii Sénégal dañuy am na yoo xam ne ma ko wax télé ci affaire yi. non mais le cour des comptes wax nga ni nga ni nga ni. amuñu cour des comptes gisoo fu mu ko bindee ak fu mu ko waxee. télé nga ko déggee ak rajo. mais mun nañ ci sukkandiku. pour leeral non munoo sukkandiku ci verbe. il faut les journalistes là il faut ngeen def attention parce que mënuñu leen ne euh, yow dañ laa fekk euh, auberge xaw ma euh, xaw ma nu ñu ko tuddee dañ laa fekk benn auberge rek. ñu tëjoog benn waaye rek Sénégal jëpp jàpp ci fii dañuy jiñaate di interpréter. non mais xam nga ñoom loolu. non des comptes bind ko gisoo rapport bi dans le journal ñu wane in fine. d' d' accord mais xam nga wax la comme wax la dama lay expliquer. que on doit attendre la vérification. et que quelqu'un apporte les preuves et l'autorité prenne la décision. mais c'est très grave quand même. mais si soo amee c'est très grave. c'est très la même chose. mais dama la bëgg pour qu'on soit dans hmm. hmm. bu baax. Hmm. ah yow yoroo. parce que détournement bu ñu tuumal ci ay ministères. moom laa la wax bokk na cee bokk na ci ministère des mines ah, kooku bu amee ci réew. c'est comme comme Abdoulaye Diouf Sarr. mais mais bu ñu ko waxee day mel ni day mel ni sax ñun amatuñu réew. te yow Covid bi gis ngeen ne tout a marché. sur le plan de la culture non dama lay expliquer Covid bi xam nga ñu ngi wax di tuumaal Diouf Sarr ñu ngi wax di tuumaal keneen ak keneen. mais yow bu ñu ànd ak ñun suñu sago nekk nit ku normal nit ku honnête. war nañ xam ne Covid bi l' état a fait ce qu'il pouvait faire. mais loolu moo waral nag. xam nga léegi da wax lu am solo major da nga ni euh, war nañ ko war a mun a gëstu. ba génn ci gëstu mais loolu moo waral loolu moo waral ki nga xamante ni moom moo di Birahim Seck bu Forum Civil. Ah. nee na président Macky Sall dafa war a jóg ci bilan bi il ci ay leeral sinon rek. mais da koy indi mun nañ ko jàppee comme complice. non da koy indi. nga ànd état comme dañu wax loolu ñoo état mooy destinataire rapport yi mais Sall bu toogee mais Macky Sall am na ay inspecteur d' état yéen xam nga réew a Sénégalais pour ñu dégg gis nga ñun dañoo am deux étages. On a environ quatre-vingts inspecteurs d'État. J'y vais chaque fois. gis nga ñooñu bul yaakaar ne ay ay nag la ñu créé non gis nga ñooñu loo wax Sénégal ak loo wax nit loo réglé dañ koy enquête de A à Z. gis nga juridiction yi bu defee jugement wala juridiction yi def ay rapport wax koo mën a gis nga gis nga nit ñi ngay gis ñu relevé de ces fonctions là l' fait des enquêtes parallèles af nag bi nga junj léegi dégg nañ te euh, je me dis que c'est très grave bu ñu déggee un ministre de la république Cheikh Oumar Anne jur bi nekk wala bu jàngale bu kawe gi toog ci plateau télé ni OFNAC wax Pastef ñoo ko moom ndax couleur Pastef la non loolu war ko wax. te OFNAC. non d'accord nekk euh, nekk nekk nekk. li nga xamante ne état moom la boo xam ne. qu'est-ce que ça veut dire non posture ko loolu moom ça ne se kenn sant ko ko kenn wax la ko. peut-être des coups de fougue et de fougre politique quoi sentiment <laughs> mais xam nga loolu mënuñu ko wax OFNAC est une institution créée par l'État du Sénégal et l'OFNAC nekk une euh, institution bu buy buy alerte la du réprimer PVM kenn mënu ko yóbbu parquet kenn du ko yóbbu fenn OFNAC c'est comme en parallèle rek comme li nga kii le contrôle d'État là kii mm-hmm. d'État c'est pour regarder euh, Office national de lutte contre la, la corruption et tout ça c'est pour regarder les anomalies de gestion parce qu'il la concussion et la corruption qui diffèrent ñaari affaire dafa am concussion am corruption parce que les fonctionnaires parfois ils sont corrompus mais parfois ils sont concus concu nga laaj loo xam ne waroo koo laaj wala ëpp na li nga waroon laaj. comme taxe ak émission demee ji ba nga xamante ni. ko def rek te tout euh, récemment. amul président teg fa ki nga a fa dem mooy ay xuloo la entre. et moi je dis Jandos que il devait pas le dire parce que ça n'existe pas Pak Macky am na responsabilité yoo xam ne am na fayda goo xam ne amul kum fi ragal wala kum fi rus ci leen ci lu yàq bu fekkee nekkoon def lu ko warut dana la dana la punir ndax moom la yàlla jox pouvoir pour muy régler loolu moom il devait pas le dire parce que loolu bu dee wax na ko man déggu mu wax ko mais bu dee wax na ko ci plateau waaw bu ko waxee waru ko wax parce que OFNAC y a des officiers de gendarmerie de police des gens vertueux ñoo xam ne dañuy def seen liggéey normalement man j'y vais dama fay dem des fois seen liggéey la ñuy def li leen indiqué moom la ñuy élucider ba xam li ci nekk jox ko kii de droit mais li Sénégal lay xamul OFNAC du du institution de répression c' pas une police ni une gendarmerie c' est pas une pays c' est pas une juridiction de grande instance ou de de de, d' instance. elle n'a aucun pouvoir de de d' de d' au sens étymologique du terme OFNAC day expliquer rek que telle situation c' ça qui s' est passé lors de cette situation léegi nag ce qu'on suit après nous di def rapport def rapport yi nag yow moo lay mooy tax état bi jël et puis parfois comme je t'ai dit il y a des il y a des fautes y a xam nga en matière d'administration day am détournement mu jiite woon di Nafi Ngom Keïta bëri na ay documents yi nga xamante ni teer na ci loxo Ousmane Sonko moom moo ko jox. mais dara warut a teer ci loxo Ousmane Sonko il faut que ce soit clair Ousmane Sonko ne doit avoir aucun document émanant de l'État du Sénégal et du système il n'est pas habilité d'un simple citoyen xam nga aussi ñu nit il faut ñu def attention man de leen kaay may politique rek am ay nit nga bëgg a taxaw ne man. par exemple dañ may jox ay kayitu état lu état bi defar naa ko xam lu ñu bind war nañ ko xam Macky Sall bu ñu ko joxee renseignement war nañ ko xam non madame c'est pas comme ça l'état est représenté hautement par président de la République président de la République il a des gouverneurs des des un gouvernement et des bu dossier ñëwee ci moom dossier bu nekk am na ku mu koy imputé si c'est un dossier bu de war a dem per da koy imputé justice pour suite à donner bu dee économie noonu la de d' état. d' accord voilà dañuy imputer dossiers yi. Mhm. aucune personne ak mhm. grade boo am. bu dee sëriñu murit nga. wala ngay sëriñu tijaan même les xalif n'ont pas droit aux documents. ak di pour la gestion de l' état du Sénégal. Ah. donc képp koo xam ne day politique Sénégal. yaakaar ne sa doole may na la ko nga jéem a ah. benn kayit ci état du Sénégal. Ah. faute la. d' major c' important mais bu ñu dellusiwaatee fi ñu taxaw Euh, sànq ci biir euh, mu à savoir motion de censure bi euh, tey jii ban jàngale la ci mën a def bu ñu demee ba gis ni waa wallu signé parce que nee nañu ils n'ont pas été avisés à temps te ñoom jàpp nañu ni rek comme intercoalition la ñu woote woon ci législative yi donc nag ba ñu ñëwee assemblée ku ne da am sa parlementaire jàpp nañ ni dañ la waroon impliqué ci mbir mi ñu xool naka lañ koy jàngatee ñoom ñëpp moo gën ñu jël seen décision ba pare daal leen informer ni comme ça. non xam nga ko waral wàllu mooy waa PDS et autres là. waaw c'est des gens très intelligents. ils ñoom bëgguñu être rattrapés par l'histoire xam nga dafa am faute yoo xam ne ci politique boo ko defee benn yoon rek pare nga. loolu la ballu def waxuñu leen lépp dañ ko tontu la rek mais jamais ni gars yi ànd ñoom parce que xam nga tax c'est la forme qui n'est pas adéquate xam nga on n'a pas de premier ministre on a des ministères qu'on a budget on a voté successivement ba mu pare mais le, premier ministre la synthèse. de la politique générale que le budget que vous venez de voter sera exécuté comme si. jàpp répétition rek la fa la fa ministre def. moom la moom lay def mënut a def leneen parce que. ñoom ñu doon sàkku ci moom mu njëkk déclaration. non non non non non laata ministre yi di ñëw. non bu ministre yi wax que le ministère des des forces armées sera renforcé en moyen nangam mais ñu wax bala muy pare sax ñoom ñu commencé coow c'est-à-dire la politique générale d'un État il faut des éléments constitutifs yi matière bi. bi nga bëgg a wax yow il faut nga wax li ngay def lu tax nga def ko politique générale mooy notre politique générale nous vous avons envoyé les ministres ils ont présenté leur budget que vous avez bien voté tout a été voté non hmm. mais il faut que vous justifiez et sargal leen remercier leen ne la vous avez bien voté et ce que vous avez voté sera exécuté à la lettre ni ngeen ko voté lañ koy voté et que l'État est, est, est engagé à faire une résilience pour population yi di lekk xale yi di liggéey et puis nous problème il faut que comme jur nañ ay doom ba pare jur ay nit ak fonctionnaire instituteurs yi nga xam ne ñu ngi liggéey xam nga maanaam le problème dans un pays c'est quoi mooy li ñuy def nii mooy fexe ba ñuy judd di ñëw di màgg war a wut seen waaj takki jabar ak doom il faut ñuy fexe ba lum ndaw daw ñu am luñ def xam nga loolu mooy insouci état. mais gis nañ tamit ba tey ci ci l'intercoalition Yewwi Wallu euh, waaw Wallu. tourne le dos à Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi Yewwi non mais mën nañ ko tuddee noonu. bu gisee ni bañ nañ voté c'est-à-dire ko ñoom ñëpp ay opposants lañu non ils preuve. xam nga quand tu fais preuve de non régularité wala nga def de d'incompétence wala nga def preuve de sabotage mais am na ñoo xam duñ ko duñ parce que ils veulent ñoom duñ nangu mu rattraper leen dans l'histoire da nga fàtte ne wallu dañoo gouverner ñoom li Macky Sall def xam nañ ko dañoo comprendre lay def ils ont vu la quintessance de ce que ce qui est fait par Amadou Ba. mais gis nañu ay coppite yu bëree grand gis nañu ay Abdou Bara Dolly nga xamante ni ba ñuy voyager dañuy jël seen procuration dénk ko ki nga xamante ni moom moo di Oumar Youm président groupe parlementaire benn bokk yaakaar ngir mu mun a voter budget yi pourquoi pas mu war ko jox ki nga Ba Abdou Abdou Bara Mbacké Bara Dolly yi certainement tuuti dina ab ci fotam ko donc gis nañ ko ñëpp ak yooyu la comme est-ce que annoncé ki may baar may Bara kii mu kii la doon. voilà est-ce que yooyu comportement annoncé wul woon annoncé wul woon les couleurs. non il n'est pas avec le pouvoir. waaw da kan la ko jox Omar Youm. opposant la. waaw ah. bokk wallu. Hmm? Euh, Mamadou parlementaire. mais dafa joxe euh, dafa jox mandat procuration mu joxoon ko Omar Youm ba muy tukki. pour mu mais kii xam nga indépendant la. dafa ànd ak ñoom bu faites pas attention hein. ce gars là gis-gis la nekkoon faites attention. waaw gis-gis la nekkoon. gis-gis dafa ànd ak ñoom. mais il est indépendant son esprit sa pensée parce que il est venu c'est comme papa Pape kii. Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall tey bu ñëwoon bu ñëwoon APR. ci groupe non Pape non inscrit. non dama ne la moom laa il est non inscrit kii s'est inscrit là-bas mais il est dans dans dans la lettre dans dans l'esprit et tout c'est la lettre il est il est avec Wàllu mais dans la dans l'esprit il est indépendant parce que il est venu de lui il s'est présenté ñoom dañ ko présenté fële Mbacké. chez nous avec Mbacké Ndaw. mu battre leen. donc kooku bu ñëwee kii xam na dara de il est intelligent xam nga boo ko xeebee nii parce que deful école mais mais il est très intelligent mais bu gisee ñi ji di aller droit au mur nga yàq def loo xam ne faute la c' est à la limite une faute grave tentative ta de coup d'état mi ngi mel na nga jël fetal di bëgg yàq réew. moo tax ma ni la bu déjà buñ ko gisee moom mu moom mu. moom mu teel def loolu est-ce que loolu annoncé lu woon déjà li am. nii non dafa annoncé est-ce que waa yeewi waruñu woon ils savent que ça gens là duñ def moo tax ñoom ñu daw sauver seen bopp parce que état aussi dafa am respect. kon jàpp nga ni bu dem doon tey peut-être duñ def intercoalition. non coalition c'était pour avoir des pays mais après ça c'est fini ils vont jamais s'hasarder de l'autre côté parce que de l'autre côté là ce qui se passe là-bas ça peut pas continuer. c'est des conflits contentieux rien de proposé lu non non non monsieur madame waaw mais ci assemblée mais mais non non madame Yewwi mhm. être dans l'opposition politique ne veut pas faire être de l'antagonisme tout foutre en l'air vous savez en guerre quand vous faites la guerre avec quelqu'un yow tu essaies que de le détruire nest pas guerre loolu la ngay détruire mhm. ñii ils sont en guerre nekkuñu dans un contexte démocratique autre c'est en guerre ils sont c'est de détruire mais mooy seen philosophie mais malheureusement ils sont tombés avec des gens Amadou Ba disciplinés rek objectif ku ko lu waay bon ak soxor soxor xam nga ne am dafa dal dafa nite dafa compétent. gis nañ sax ci yenn opposants yoo xam ne. ma ne luy nañ ay qualité. ma ne Amadou Ba nit mënut a ñëw Sénégal di ko motion de censure muy jàll. parce que yow da woon ne moo la fukki jën ak juróom boo toogee consciencieusement xool sa bopp da ne man j'ai été un parce que xam nga am na yoo xam ne dans vie même bu dee politique il faut jamais commettre ses parce que lii yëpp sénégalais yi sax la et puis sénégalais yi commencé nañ conscience lan mooy seen avenir parce que aussi institution dafa am importance ci réew il faut éviter à ce que des gens di saboter des institutions jusqu'à nous mettre dans les crises imagine tey par pur hasard rek des gens là allaient réussir avec tous les efforts avant muy def politique genre dafa wuti sax complémentaire bi ce qu'il a mais si ce n'était pas le vote de moom laa la voilà mais Sénégal am nañu conscience bokk yaakaar mais war a y a pas de waaw ah, wu ay vingt ans nekk na fi président ay ñaata euh, quatorze ans xaw ma comme ne c'est-à-dire ñoom ils savent ce que c'est que l'État Doudou Wade ak ñi àndal ak ñoom Lamine Thiam am na yoo xam ne duñ ko dara jarul leen ko ndax ñam nañ nguur xam nga nit bu bu amee bu gouverner rek day gore parce que après day day def analyse. ak mais am na nag ñu gis ne est-ce que piège boo ñu quelque part waa wàllu pour les démasquer pour won askan. ils ne sont pas démasqués wàllu sont appréciés c'est un c'est ils ont un comportement régalien c'est ça un état un état quand l'intérêt supérieur est là il faut il faut l'assumer quelles que soient les obédiences mais nag bu dee yàq ngay def mais mais voilà le résultat loolu tamit également ci ci bi lépp démarche waa Yewwi Askan bi le pourquoi Birame Souleye euh, baay euh, ba war ko ba war a déposé seen demande de motion bi euh, doog ko doog a aviser ki nga xamante ni moom Mamadou Lamine Thiam président groupe parlementaire moom xam nga Birame Souleye moom Birame Souleye c'est un gosse de Thiès moom d'habitude il est intelligent vous avez vu ces temps hmm. création bi ñu ko créé loon mais xamoon nañu du jàll parce que Birame Souleye ne peut pas être à Thiès dëkk ki moom mbokkam ak ki nawleem ñu wóolu ko ba def maire Birame Souleye war a ñëw représenter nguur gi nekk député ñu koy indil ay benk ñenk mais comme dem nañ ba ci biir xam ne coup d'état bi ko mënoon a sotti Birame Souleye fi ne on l'a laissé en paix parce que rien n'est plus indiqué d'être député maire dans un pays loolu moom c'est la moindre des lay wan ne moom moom lay manifesté waat fii imaginez un gars comme su Souleye nekk deuxième ci parti bi ñu bokk je te donne exemple naka lay nekkee député maire autorité bu day ni Birame Souleye ngeen di xalaat mu bàyyi benn donc loolu moo lay wan ne xoolal mhm. loolu moo lay wan que ñoom il march par la tête c'est ça le danger xam nga si ce qui a été répété avec le cas de Amadou Ba xam nga nag gis trop rek égal trop mhm. gis nga tout excès est nuisible gis nga même même suukar boo koy suukar di ko suukar di suukar ba suukar moo xam nga suukar dafa neex day mujj dem ba du dootoo doo boo ko naanee léegi sa corde vocale yàgg dootoo mën a wax c'est ça a été le cas de ces aujourd'hui je vous renvoie ci niñ defoon Birame Souleye ñoom xamuñ sax la ñuy def naka la un un deuxième d'un parti politique sénégalais qui doit bu représenter sur le terrain et vous représenter au à l'Assemblée nationale au vu de tous les Sénégalais le maire il est local le député il est national ko kon naka ngay xa foofu la ngay xamee ne ñoom cuune gi fa koy xamee et ni l'objectivité ni réalisme parce que imaginez Birame Souleye bu nekk député maire yow ngay ko c'est ce qu'ils ont fait. non mais moom dañ ko fàttali rek ay kàddoom. non no non Birame Souleye li mu analysé. loolu Birame Souleye li mu wax c'est clair. voilà Birame Souleye il une analyse logique. mais Birame Souleye def na leen man dama dëkk ak ay nit dox ak ñoom ba ñu wóolu ma jël ma muy benn. ci bi mu dëkk. deuxième mu liggéeyaat moom ba ba nekk député. mais imaginez un deuxième deux parti politique national. yow ñi nga àndal di la xañ loolu nga xam ne ñii kay moo lay wan ne duñ dem. ëllëg rayante bu du jeex. mais dañ ko fàttali woon rek xam nga ñoom. ñoo duñ ko fàttali fàttali lañ arrêté c'est comme les cas yi wax ci réew mi ay affaire mandat xam nga affaire ay wax yoru réew de fonction mais cumul cumul cumul lañu waxoon lañ de plus indiqué de ba ba li nga xamante ni moo vex un tout petit peu je peux dire moom dañ càmm jàpp ne dañ leen là-dessus lu ñeel motion de censure xam nga lu koy indi loolu xam nga lu koy indi da ngay am intention yaakaar ne da ngay def coup rek coup bi dal lu koy indi loolu la sournoiserie mooy indi cas yooyu xam nga qu'est-ce que c'est la sournoiserie mm. tu veux faire mal et tu passes par les couloirs léegi il pensait que en faisant mal ne pas alerter par le et le ils vont faire rek ça marche mais c'était mal connaître la morale de Doudou Wade. d'accord d'accord Doudou Wade et quelqu'un ak Lamine dañoo am morale am nañ éthique et puis dañoo nekk ñu ci réew mi màgg ci réew mi te am na loo xam ne dañ koy jomb. dañ koy jomba wax di ko jomba def. d'accord te loolu dafa baax ci réew. donc il faut que nit ñi réew. ñi am vertu nit day am vertu moo gën. di di di di nekk di kompolo ci suuf ak di lijjanti foo toll c'est pas bon. d'accord alors ci loolu gis nañ benn benn bokk yaakaar ñu gën a ànd ak confiance jëm à l'Assemblée nationale démb gis nañ leen bi vote bi yaxee ñuy yuuxu ci ci ci salle bi na fii ñoo ko moom. Mhm. mu mel ni tamit daf leen gën a daf leen gën a mettre en confiance. waaw danañ mettre en confiance. parce que euh, Benno Bokk Yaakaar par son leader et ses gens dañu amoon une philosophie à développer c'était pour responsable les Sénégalais et de sorte que chacun participe au développement national et le sacrifice bi ñuy def nii nit ku am xel war nga xam ne nit bu la gouverner sept ans bu doon labajkat dala fay ba bu dee xaalis sa ko tax a jóg wala maqaama à l'extérieur mën na ko am mhm. bu dee ay doomam tekki mën na ko am lu mu bëgg ci àdduna na di jéem a jiite réew moomu ñuy saaga di ko teg de fou di di ko ko wax lu bon et tout di ko casqué di dugg ci avion yi ñetti fan yu nekk nga dugg avion avion lu muy garaaw garaaw moo gën a naqari ñetti fan yu dugg avion di indi ñuy lekk di naan ah lu ne ñu koy jéem Sénégal ba nga xam ne yow mii rek ku la gisoon léegi bëgg laa lépp million ah te yoroo dërëm nga xam ne réew moomu dox na mhm. man mii ku ma gis nii aw ma lu ma sukkar ak café mais da nga naan je suis en paix mais mmh. qu'on fasse attention à la politique et puis essayer d'avoir chaque fois du consensus mmh. pour que l'État continue et que les institutions marchent mais mais si on en prend garde mmh. mais ma ne la danañ fi yàq loo xam ne ñun ñooy lor gone yi gis nga xale yi difficulté yi ñu am mmh. parce que ñun ñoo commencé di créer ay situation yoo xam ne day tax suñ doom yi duñu mën a nekk dans un environnement décent parce que nit mënoo ay nit jiital jiitale def sacrifice di dem di ñëw te am ay millions am seen xaal am seen maqaam mën a liggéey feneen di dund ah yow ñooñu toog ak yow ci réew mi di la gouverner di dugg avion di yalwaan di wayaan lu ne ñu ko def mm-hmm. di indi di leen ko jox ngay lekk rek yow ñooñu nga bëgg naan daga leen di toroxal mais yaay mujj torox am na solo donc a rappeler que vous suivez toujours votre euh, émission du week-end Sénégal VSD ñu am tey toog fii àjjuma ak suñu invité euh, bi nga xamante moom moo di Major Kandji moom ci la gën ci actualité bi alors major autre question de l' actualité gis nga euh, li jiitu loolu euh, Amy Ndiaye ñii bi ni ñu ko ak accès euh, tax sax ñu daal di teg loxo ki nga xamante ni moo di honorable député Massata Somb ak Mamadou Niang bokk ci PUR également coalition bi di Yewwi Askan Wi déjà cette affaire laata ñu leen di woo doo bu ñu doo Amy Ndiaye ñii bi comme ñi ngi doog a jàkkaarloo mhm. loolu yëpp bokk bo jàngal nga ci def waa jàkk bi c'est très malheureux c'est regrettable manque de aussi quoi c'est un manque de contrôle là parce que xam nga lu tax mu nekk manque de contrôle et de maîtrise parce que xam nga quand on entre en politique rek. Mhm. on s'expose. il faut que quand ñun sénégalais yi eh, xam nga sénégalais benn problème bu garaaw bu fi nekk boo xam ne sinon je répète le mot quoi bu ñu ci jël génn. xam nga aussi euh, les familles maraboutiques là muy njabootu Sëñ Touba di njabootu El Hadj Malick Baye Niass Limamou Laye bu ñu duggee ci politique rek ça peut amener un jour un problème xamul tax muy andi problème. boo xuloog nit <laughs> muy sa rival politique ngeen di ci waxante di xasante imagine tey bu lay saaga maam rek ñun sénégalais yëpp lay mu ngi saaga xam nga kooku ça pose problème mhm. si vraiment bien xam nga moo tax loolu lu ñu war a régler la xam nga man fi ne nii man mi nga xam ne Mbàkke laa dëkk ñuy samay maam te te man par exemple bokk maag waa ji affaire politique bi sax ma sama yoon mën na cee bañ a nekk mhm. imagine tey man tey sama sëriñ mhm. bu duggee ci politique bi. Mhm. daal di may yóbbu ba mu nekk député. Mhm. man ma ni nit. Mhm. ñu xuloo nekk chef de parti légalement déclaré c' est ça le risque c' est à dire tout le premier parti de là la la cause quoi le facteur criminogène. si on analyse bien. mooy il faut qu'on revoie le tempo et le principe de la légalité dans la forme comme dans le fond de la légitimité de de de de très tôt appréhender ce phénomène là qui commence à s'augmenter parce que le phénomène la c'est tout simplement dit et fait que c'est Moustapha Sey et surtout Aladji Malick la Serigne la mais la réaction des autres n'est pas une réaction visant à répondre à des attaques à un chef politique tout court comme Alioune Kandji wala Doudou Wade du am mais li indi wax ji muy de l'autre côté comme. Ah, quelque soit alpha waaye mënuñu ko xaajale. parce que tamit sëñ euh, si. non dama ne en même temps tamit moom mooy. dëgg da ngay waxi fen moom mooy nitu politique. déglu ma expliquer la Sénégal surtout El Hadj Malick ak sëñ surtout sëñ Cheikh Ahmed euh, Ba surtout Baye Nour bu ñu defee politique ça peut am na des problèmes kooku koy amul demal ma ñëw parce que xamul tax politique ay waxante la ay jëfante discours ndaw si dégg nga ko duñ ko répété mais madame bu dee da nga nekk surtout ñooñu boo duggee ci politique ça peut tout le temps am na des mais discours ndaw si boo naa ko amul saaga amul dara yaa waxoon lii waxoon lii la wax mais dama ndaw si wax boo ko waxoon tey Doudou Wade du am problème même su ko waxoon Abdoulaye Wade du am problème foofu xoolee pour nga comprendre la la chose li indi ci réew li ndaw si wax bu ko waxoon Abdoulaye Wade sax du am problème. finalement les deux députés euh, ñu daal leen place. voilà garde à vue ginnaaw bu ñu jënoog procureur. moo tax ak yooyu bu ñuy def politique Sénégal di échanger ak nit ñi. dans la dualité politique c'est assujetti à des problèmes. mais jàpp mais d'accord mais est que ci loolu waroon waroon dem ba yegg non ça dépend ah. femme victime la de cause de blessure femme bi c'est pas l'État c'est la dame qui a été euh, malheureusement c'est en public et c'est en public avec la télé donc il y a pas à chercher des éléments mais ñoom nee nañ lu ni mel assemblée non ça non la répétition ma ne ma ne ma ne madame xel Oumar Sarr doon nañ ko fi assemblée ba xam nga réew mi bubam rey nañ nit assemblée bëgg focus sur la dara Ndiaye bi rayoon nañ nit assemblée kenn waxul dara violé woon nañ nit assemblée kenn waxul dara on viole des personnes duñu wax dara kuñ wax viol dañ lay jàpp dañuy sàcc nit des fois ci kër mu ne sama jarbaar la sama cousin la sama colonie mais c'est une question qu'on se pose non il y a pas de question à se poser yow sa bopp journal yaa ko war analyser c'est pas la règle et c'est pas la logique ça ne se juge c'est pas un fait justificatif nga dóor sawat gel en plein jour nga ne personne nañ femme ma mais porte plainte ko la plainte est incidentielle à l'action est gis nga certificat médical. non gisuma ci dara ma ko xool sama yoon nekkul c'est-à-dire man maa la explique. xam nga xam nga lu am par la suite dañoo xam nga dafa dama lay jàngal rek quoi pour ñuy déglu ñu bañ a bugg seen xel. dafa am infraction yoo xam ne boo ko defee visionnement ci télé jël sawaat door jigéen sawaat sawaat dañuy comme karateka gis nga noonu la def ndaw si moom non ah mais yooyu boo ko defee duñ mënati nekk di polémiquer. xam nga bu dañ laa jiñ rek dañuy polémique mën na am duut na am dañ laa jiñ mën na am duudal mën na nekk dëkk loolu yàlla rek. waaw mais certes c'est important xam nga su fekkee dañoo nekk dëkk bu nga xamante ni opposition bi personnellement dañoo jàpp ni justice à deux vitesses moo fi mhm. ñoom déjà ñoom loolu ñu jàpp. léegi bu ñu ñëwee gis ni euh, ñu attaqué. député bu mouvance bi rek yoon seen kaw ci si alors que ñoom madame loolu xamuñu la wala wala xam la règle xam la règle morale quoi que deux hommes di dóor jigéen en direct avec la télé devant l'Assemblée nationale vous vous essayez de théoriser mais ça c'est une catastrophe non nous on essaie rien non non tout le monde tout ceux qui théorisent même ku ci wax mhm. c'est de la catastrophe xam nga qu'est-ce qu'il faut faire il faut dénoncer regretter et mettre en place un dispositif de nature que assemblée léegi dana am règle yoo xam ne ak yoo xam ne day dugg ci bopp nit ñu ne fii ku fi dóorati nit on t'expulse de l'assemblée dañuy nangu sa mandat député bu ngeen di wax bu ngeen wax lu leen neex te doo am injure ak déclaration il faut ñu changer règle yi ku fi dóor nit ñu dàq la abadan nga génn te dootoo nekk député Sénégal jigéen aussi bu fi dóor góor ak góor gu dóor jigéen gis nga wax ji wax ji c'est pas la solution de parler de ça La solution, c'est quoi C'est de moraliser l'Assemblée nationale. Et malheureusement, cette fois-ci-là. Mhm. Mais madame, si on en prend garde, les catastrophes nationales, les c'est même pas respectueux. qu'on soit très clair. dinañ ko kay parce que déjà euh, Moustapha yëpp de jug nañ. voilà am na ay plaintes yu bëri yoo mais également. lu am solo euh, dañoo on doit régler l'affaire. d'accord dama lay expliquer ñun. Mhm. pour ce qu'on appelle l'approche de résolution des conflits. Mhm. un état euh, c'est c'est la symbiose cohésion nationale mais il faut que ñun ñëpp ci réew mi ñun kenn ku nekk ci réew mi ñu arrêté suñ saaga yi suñ délation yi complot yi fen yi ak labat yi parce que àdduna bi jaru mais dañoo dégg dem ba ki nga xamante ne maa koy wax sànq yeggaleku ma euh, bi ñu ko dóoree ba noppi moom Amy Ndiaye ñibbi par la suite mu xëm ci saal bi ñu évacuer ko ñu dégg docteur Malick Diop ñëpp njëkk wax ni docteur Malick Diop plutôt njëkk wax ni euh, la dame dafa ëmb Euh, après finalement ñu gis ni certificat médical bi nga xamante ni médecin yi foofu ci hôpital principal euh, daal nañ koy établir mu daal di euh, comporter li nga xamante moom la docteur Malick Diop waxoon ci njël njëlbeen mais dañoo dégg dem benn Barthélémy bu ñëw à l'assemblée taxaw ci pupitre bi publiquement wax ni jaaj bi ëmboon na mais bu ëmbee est-ce que tamit borom këram sax moo ko ëmbal mu nekk ay insinuation yu forte yu nga xamante ni saaga la est-ce que borom këram ëmbal c'est c'est de la diffamation en public. dérapage. mais non pas dérapage c'est de la diffamation dañ ko si la femme plainte da koy woo xam nga aussi loolu la bokkut ak complot wala leneen moom moo ne est-ce que jëkkëram ëmb na une femme nga ne est-ce que jëkkëram ëmb si jëkkëram ne man sama femme soupçonné ko d'adultère vous m'avez diffamé ñoom parce que ñoom jàpp nañ ne ëmb bi ñu avancé non xam nga loolu amul ñoom mais loolu à dire dans le cas en direct dans une télévision l'acte initial rek doy na pour procureur jàpp la l'acte sawat bi ñu dóor gel femme bi ñoom ñaar loolu moom c'est des coups et blessures, des violences exercées sur la dame. Même si elle n'a pas subi de coups, on dit coups, coups blessures ou coups. Même pour connaître coups. Même l'acte délictuel, c'est d'agression corporelle. Une agression corporelle. Agression corporelle, une toute agression, ça fait partie des agressions. Agression corporelle, c'est pas parce que da nga dóor nit ki toroxal ko futti ko diri ko ci oto mais que am na chance il n'a pas de blessure on te laisse partir noonu surtout quand flagrant comme ça quoi d'accord alors beneen mbir tamit bi nga xamante ni major euh, en tant que euh, un ancien de la gendarmerie euh, baax na tamit ñu laaj gis la disparition des deux gendarmes Didier Badji ak Fulbert Sambou mhm. gis nañu ni par la suite coow bëri na accusation yi fu na fekk ci laxas ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang ni dafa am rapport ak ak son ak son dossier ñu dem ba mujj gi dalal naa fii sama plateau am Suzanne Camara euh, mu ne euh, certainement ay ñoom Ousmane Sonko yëpp ñu ngi ci biir amoon nañu <laughs> euh, mobile pour pour pour faat leen mm-hmm. c'est très grave bu ñu tollee fii ñu ñuy wax ay disparition ñaari gendarme Eh, réew nañ mhm. ko waram ba finalement ci na ko mhm. ah, réew réew réew mhm. gis nga bu ñun ñu nekk actuellement ci réew mi nii muy pouvoir comme opposition et surtout opposition conseil bi leen jox il faut jamais mettre des jalons yoo xam ne ëllëg ça va tous les rattraper ça va les rattraper il faut être très prudent quand on est dans un pays te deewaguñ boo deewagul ci réew da prudent ci li ngay wax li ngay def rattraper un jour yàqal la gis nga euh, état Sénégal muy parti bambam sécuritaire muy police di gendarmerie de armée dañoo nekk niveau boo xam ne il n'ont même pas besoin de de de même arrêter un étranger nous sommes tellement bien structurés bien organisés gis nga nos deux collègues là c'était de surtout le gendarme c'était un excellent gendarme un excellent gradé Fissa di jëbal ci wala. Fissa mooy le le je le connais quoi dama koy fekk dama ko doon fekk IGE inspection générale. un gosse très gentil très formé très formé discipliné dama lay jël ñoom ñaar ñëpp segment par segment pour nga comprendre à qui profite le crime et à qui pourrait profiter le crime ça peut profiter à tout le monde. l'État ils n'en ont pas besoin. ils n'ont aucune accointance wala aucun soupçon rien tout pourquoi je vais vous expliquer le à lui il ne reçoit que des correspondances comme yi nga wax léegi ci contrôle yi <laughs> xam nga Sénégal boo xamul rek il sait même pas ce que c'est que l'inspection générale d'État l'inspection générale d'État nekkul ci renseignement nekkul ci sécurité nekkul dara xam lu muy def boo bindee lettre président la même dénoncé wala plaindre <laughs> yaa ngi may dégg baax bi mhm. mën nañ ko imputer benn inspecteur bu dee affaire domaniale je donne l'exemple mën nañ ko jox Aly Ngouille Ndiaye euh, mën nañ ko jox Birima Mangara wala ñu jox ko Ousseynou Ousseynou kii euh, Ousin sama copain lañ quoi c'est des inspecteurs d'État par exemple je te donne un exemple inspecteur d'État mu am benn problème boo xam ne ça touche des histoires de détournement de douane de nangam d'expertise de ma ñu jox dañ ko imputé Matar Cissé un colonel Ba qui est devenu d'État si ça touche l'armée ça touche des on le donne au colonel Ba si c'est des histoires qui touchent les histoires de travail de fonction nangam naguñu retrouver. non dafa naa ko expliqué rek boo boo ma coupé non boo ma coupé Sénégal duñ comprendre. inspection d' état ak genre bi nekk inspection d' état. ils n'ont rien à voir en matière de renseignement en matière de sécurité en matière de nangam ils ne gèrent qu'à élucider le président de la République dans des situations qui gèrent la marche du pays sur le plan administratif. donc le jeune là moom il n'a pas accès à des renseignements il n'en donne pas il n'en reçoit pas il n'est pas mêlé. à des renseignements mu kooku féete boor. kon déjà euh, dafal ndànk rek kooku féete boor. kon déjà kon déjà foofu blanche ko ci ci euh, ni ñu ko rattaché ak l'affaire Pape Alé Niang. quand le jeune là. waaw man yooyu du ci dugg xaw ma ko dama laa bëgg a wax moom position bi mu am ak ñi muy liggéeyee ndool waaw rapidement ñooñu amuñu ñoom benn relation ak ay sécurité militaire amuñu ñu gis nga même le colonel bi je donne un colonel Bakk que je connais bien quoi il n'est plus colonel il n'est plus militaire da ngay am dem foofu. yow de buñ soxlaa des choses lu ñu bëgg a vérifier pour une question d'équité moo tax ñu inspecter détail dans les corps xam nga l'armée dafa am inspection genre des armées corps yëpp am inspection mais il arrive à des niveaux yoo xam ne l'autorité suprême Jean Collin ko fi defoon l'autorité suprême day bëgg am des choses yoo xam ne avec des gens qui sont pas soumis à la hiérarchie. d' mais rapidement la moo war a tey jii ba tey kenn mën leen fexe ba parce que sànq yaa ngi yaa ngi loué yaa ngi loué ay qualité gendarmerie ak. waaw voilà donc ji lu waral kon depuis lors mënuñu fexe ba. wax la disparition la disparition loo loo gis nañ ko ci ndox bi. waaw mais dañuy chercher lan moo ko dugal ci ndox bi. loolu a raison euh, tu sais euh, du benn ak ku ñu rey ci biti. parce que boo noyé woo euh, sel et bu fa defee une semaine yow li ngay mën a xam ne la mort est post-mortem et ante xam nga nit bu duggee ci ndox dañuy xool nagam dafa dee dugg ci dafa dee ñu def ko ci wala da cee dee mooy ante-mortem mortem et post-mortem pour xam ko médecine légale loolu boo koy recherché yaa ngi recherché ndox muy nekk ci ci bopp ci biiram te ndox moomu nekk ci biiram même boo ko boo ko recherché mën nga dem avancer on recherche des gatome d'accord pour voir ndox mi est ci ndox mi mi naan d'accord fala labe donc ñoom bi ñu ko jotee des états de composition bu bu si le médecin légiste wala médecin requis bi def ba kii de mort bi il regarde le corps il ne voit pas de plaie traumatique il ne voit pas de de à l'œil nu koy gis déjà am na ñoo xam di ko gis day xam ne kon les causes de la mort qu'il doit chercher c'est de toucher un corps qui est déjà en état de putréfaction très avancé alors que tout est cher de nangam il y a pas de vous savez le procureur de la République de il na dit ki le droit et il administre le parquet pour mettre en œuvre l'action léegi nag Sénégal dañu jël habitude bi peut-être comme Dakar moom fii la politiciens yu mag yi nekk ak yooyu ñu def ci conversation politique mais lui depuis qu'il est venu tout est calmé tout est moralisé Amadi n'est pas dans les congolais ah sëñ Bass bi nga doon gis aussi il n'avait aucun ami wala kenn ko koy fekk bureau boo ñëwee ci bureau defaraayu café sax amu ko. d'accord mais day toog day toog def liggéeyam donc. Mhm. il faut pas que mais l'autre aussi dafa war am wax ci le gars de la DRN là l'autre militaire gis nga agent de renseignement DRN on euh, on est spécialisé là-dedans renseignement criminel la comme renseignement stratégique. dañ koy organiser on prend toutes les races. d'accord dañuy jël couleur pël olof tout pour ñu mën a infiltrer seen milieu yi. Mhm. pour joxe renseignement. boo nekkee enseignement renseignement deret yow yaay indi renseignement mais yow amoo accès ci li ñuy def. d'accord c'est important voilà donc bu clair mais dañoo gis. que on dafa nekk dafa nekk biir bu nga xamante ni euh, bëri na euh, ay nit yuñ ci dugal. ba ci ba ci arrestation Fadilou Keita gis nga ko bu Pastef ak yu ni mel ah, déjà arrestation Fadilou Keita déjà ban gis nga ci am rapidement laata ñu ñëw Fadilou Keita laata ñu ñëw c'est l'enfant à euh, qui Naf Ngom Keita voilà donc il est de Pastef mais j'ai pas bien suivi la raison pour laquelle parce que j'ai pas bien suivi diffusion de fausses nouvelles lañ koy lëng waaw donc donc c'est c'est à ça parce que aussi xamul tax euh, le parquet et l'état gère ça parce que Sénégal des fois te moom nee xam na di jabar ci personnellement parce que. waaw d' mais boo xam nga boo ko waxee boo waxee ne man boo ne xam naa Didier Badji xam naa lu ko laal xam naa lu nangam mais état la lay laaj la laajee nag te yow ko wax dans un super ko rek yem ci dañ ko laaj ba pare daal ko yóbbu ko waaw loolu la parce que mënut a justifier li mu wax xam nga boo ne xam na xam sa tur Binta gis naa ko nangam gis naa ko nangam diffamé wala wax mais de il arrive des moments yoo xam ne mu laajee foo Binta ñu xool ne Binta heure boobu mu ngi woon Casamance bàjjenam de cousinam doon takk ñu xam ne yow tu as été dans dans dans l'idée de nuire à. dégg nañ ci Ahmed Suzanne Camara mu xam wax ci lu ko nekk te yoon dalul ci koom loolu yëpp. lu mu wax ci Suzanne lu mu mais répété li Suzanne dalal naa ko fii sa plateau. lu ma euh, moom lu gën a kawe sax la wax ndax nee na moom jàpp na ni sax euh, disparition wu di jël ci ak kii di Fulbert Sambou génnewu ci opposition bi rawatina Ousmane Sonko. waaw xam nga xam nga xam nga loolu danger politique ba lay wax mooy politique gis nga politique boo jëlee boo jëlee benn taxonomie de délation. de vilipender d'injurier autre rek voilà le revers de la médaille xam nga ko il a dit opposition génn leader bi xam nga là-bas loolooy problème bi xam nga cité la cité wul Alioune Kandji kii qui supporte Ousmane Sonko cité wul Amadou Ndiaye kii supporte Macky mais xam nga leader politique moom laa doon expliqué léegi. dafa cité renvoyé moom dafa cité carrément moom Sonko. moom laa lay wax euh, moom laa lay jàpp ko. non xam nga moom la leader opposition loolu la gis koy wax parce que lui kii s'est engagé en politique ak opposition bi du benn yow en tant que yow doo leader opposition doo dara en tant que sénégalais bis tout ce nga xam dañoo dugg ci politique bi affilié wu ci parti yi nii mais il ne faut faire attention ah sont pas Ousmane Sonko de Ousmane Sonko am na lu ko neex lu ko ni ñi mën a wax am na lu ma wax génn parce que yow en tant que militant mënoo jël sëriñ yëpp yu nekk militant ñu taxaw léegi daal ne sëriñ nga moom violé sëñ bi dafa ànd parce que ñoom même waa Pastef bi dafa sorti loolu ñu wax Fadilou Keita wax yenn kàddu ñu jël ko ni ko ràpp ci kaso bi moo amal Suzanne depuis fi wax ni Sonko dañ a ko war a faat yoon dalul kenn di kenn ah, dara fekk ci ci ci xam nga xam nga famille di jabar ji waxoon nañ koy plainte xam nga écoutez xam nga li ma la dox léegi pour te renvoyer à la logique et à euh, mooy li am ci député yi ñuy défendre def joote gi directement à la télé loolu lay woon psychologie politique xam nga loolu nit keneen même un particulier même Amadou Ba bi ñu koy bi muy def politique générale bu sawaatoon bu defoon benn femme kii comment l'appelle-t-on bu opposition hmm. il sera démis le jour et arrêté donc bref fa la ñuy yem ci psychologie politique d'accord alors major rapidement waxtu bi jeex na mais na am sa gis-gis par rapport ak confrontation son sa Sarr gis nga mu jàllo euh, ba mu ñëw tey dossier bi waa voilà vraiment c'est un dossier qui doit évoluer et aller vite en jugement hmm. parce que quand sa euh, ça nous dépassionne ça nous occupe ça et il faut que les deux parties acceptent de répondre et que ñu dem ñu dem audience mais considération yi ñu ci dugal dafa bari bu ñu ci dugalee considération complot nii naa nele naa ñii dugg fi génn fi day yàgg te yàgg yàgg dana dem jugement te peut-être Sénégal doit aller à des échéances euh, électorales il faut que tout soit élucidé à temps pour que si on veut maintenir le calendrier qu'on sa xam-xam màcc ci wàllu yoon naka nga gisee Adji Sarr. boobu tey non man Adji Sarr du ma ko taxé ah. hmm. xam nga aussi la y a traumatisme après. après le viol. après il y a le traumatisme c'est la pensée récurrente. événement terrifiant. Adji Sarr est traumatisé donc Adji Sarr dafa am psychologue ak yooyu Adji Sarr li ñu ko teg dafa métti gis dafa ma ma nit ki ko xam ne dafa traumatisé dafay tëju. xam nga man du jiñ monsieur Oubdo li ma jàng laa lay wax. Mhm. Adji xool kanam gi ni mu defee dafa néewi. Sénégalais xool ko elle a même commencé à subir un chute de cheveux pas ça génneel bi mu gën nekk réellement génneel da ndet sa waaji na ko génne nga xool ku ko xam nit Adji Sarr a vieilli presque de de cinq ans elle est traumatisée elle souffre man de dama foogoon mais xam nga yéen xam nga quand on est xam nga ma grande quand on est ma ne quand on est dans une pensée négative leneen la ñuy gis mais nit ñi am na lu ñu jàng non ñun amuñu benn pensée non non pas yow pas ah. mais Adji Sarr boo jàngee nit xool da ngay xam ne kii elle est traumatisée gis nga yi muy waxaat ni yëpp da ngay xam ne elle est traumatisée elle s'efforce à parler elle a même un problème de cognitif parce que Adji Sarr est message mais ça dafa mel ni dafa mel ni man dañoo bokkul dañoo bokkul ay bët. man Adji Sarr su ma xool nii xam nga yow ni gis-gis bi ngeen di gis. par rapport ak par rapport ak sortie bu mu njëkkoon def. non moo tax ma ne la bu ci sori. affaire Adji Sarr bi nañ dem audience publique ku nekk taxaw wax ak sa moro man je pense que jarul ci sonn mu ñuy manque de respect qui que ce soit ñu ngi ciy manque de respect mais ko xoolee. non il xam na ko mais Adji li ci xew cette fille bi te Adji Sarr li wax mais faut nit ñi nangul ko ko ñu déglu ko gis nga Adji affaire Adji Sarr bi il faut que nit ñi nangu ne a le droit de plainte xam nga affaire Adji Sarr. Mhm. léegi ci dégg ci tudd nit comme Dior Diagne Dior xamul sax Adji Sarr. je te jure buñ la ko. Sonko nee na Dior dañ ko war a woo déglu ko tey boo demoon da ngay daal Mamour dañ ko war a woo déglu ko wala Dior dañ ko war a woo déglu ko. gisu ko. Hmm. xamu ko amut ak moom relation. c'est-à-dire dañuy analyser réew mi rek. elle regarde la position de Dior d'où elle vient elle est ñu formater des des des des mensonges. Hmm. de grande échelle. pour di ko duudal monter ay nit gis nga ça ne veut rien dire. Hmm. xam nga luy dëgg gi luy dëgg gi mooy lan. que les deux antagonistes se présentent devant la barre. ñu génn ci ay joor Jordan génn ci avocat gis nga ay ay ay ay ay ay Mamour Diallo yëpp ay détails la simple c'est xam nga un philosophe disait que si vous si vous aimez quelqu'un le fréquentez pas cause de sa beauté mais mel na ni ci déglu rek may ma tuuti rek ñu ne c'est de mu ne mu ne mu ne si vous suivez quelqu'un parce que dafa am alal ay tout ça ay avantages c'est un profit ah mu ne si vous aimez quelqu'un vous le suivez parce qu'il est intelligent ou c'est de l'admiration mais vous, si vous suivez quelqu'un parce que vous l'aimez et ne savez pas quoi c'est de l'amour nga xam ne xoolatoo dara da ngay gis nga cette histoire là il faut faire comme Dominique Strauss-Kahn il faut laisser la justice faire son travail linéairement et que les deux parties à barre et parler de cette affaire je pense que la meilleure solution maintenant c'est de, de ramener ces parties là rapidement en audience publique ku nekk taxaw wax juge les juges bi wax chacun en tire les conséquences parce que là-bas sénégalais yi toog di déglu sax mën a tirer dara mais fi ne nii l'enlisement là mm. ce n'est pas la peine bu ci kenn tuumal kenn di ci am bakkaar da nga ci am bakkaar mm. wala nga am ci ay ay ay ni tamit Mamour Diallo euh, tenir na en compte euh, les propos de Ousmane parce que dégg gis barki dem mu auditionné MC Niass euh, te loolu bokkoon li ñoom Sonko doon bëgg mais mu dem nag léegi bu Dior Diagne ak bu Mamour Diallo bi nga xamante ni également xam nga Sonko les avocats les avocats c'est des bi fréquenter ñu koy ñu koy inquiété man Sénégal rek laa ko gis ñu ngi tudd turam c'est des c'est un manque de respect au barreau sénégalais et là-bas ce n'est pas les je pense le barreau sénégalais parce que des faits isolés qui se sont pensés ailleurs. On ne peut pas magistrat ou bien un, un avocat dans ku ci am looy wane wala nga ci looy joxe da ngay dem yóbbu d'initiative. mais xam nga madame mhm. man bu ma duggee seen kër. nga nekk yow ci néeg nga dem a defaral kafe may naan soo ma fa jiñee nga ñàkk ma faa jiñ muy complot. dama koy régler ak yow mais mënumaa dem affaire jigéen c'est de l'attirance wala de l'imprudence kenn du ci tudd nit ñu ñëpp jaar nañ ci affaire àdduna yi mais jigéen moom nga fekk ko fenn mu lay defal café wala mu lay defal reer lekk ngeen am différent madame kooku doo wax jamais que dañ maa complot ba ma dugg fi dañ maa complot ba ma ñëw fi xam wax ji li wax du dëgg xaw ma ko def ma ko xaw ma lu mu war. d' accord alors euh, bëggoon naa ngi dugg ci ci plainte bi bi maam moo euh, bi nga xamante ni Mame Mbaye Niang posé wu na ko contre Sonko mais temps xoj nañu mais rapidement euh, bëgg naa nga indi leeral tuuti ci Sénégalais yi jafe-jafe nga xam ne personnellement yow touché na la fii ñu lire ci média bi que nii procureur dafa sàkkoon ngir ñu arrêté pour une cause escroquerie foncière à hauteur de vingt huit milliards loolee est ce nga si ñëw wax ñu loolu la waa am déet déjà du ma ci xamul ndax ma ci dikk ma dañ maa tere ma communiquer ci. d'accord enfin euh, officiellement on m'a très interdit de communiquer sur cette affaire. Mm-hmm. mais man daal xam nga li ma mën a yàlla. yàlla suturaal na ma ba musuma lekk riba musuma lekk ak sama njaboot mu musuñu ko lekk te aar naa leen ay homme de tenue ay ay gradé ay rak l'essentiel euh, man bu ma lekkee ak wala ma lekk yëf rek yàlla bu ma fanaan te ku ma xool. retraité naa dix ans maa ngi nii toog te ne mës naa di wax chaque fois fu toog. le temps bi wax ne man 1000 francs chauffeur sax mosuma koo lekk mais je suis interdit de communiquer là-dessus je donne plus d'explications dans cette affaire. d'accord euh, non dama la koy nangul. parce que yow waaw maam maam maam bi. mais na waam déet déjà. loolu problème am la même su fekkee bëgg ci. non problème bi am na. mais c'est c'est c'est et puis. c'est clair mu ngi ci kanamu yoon. waaw li ci li ci kanam rawu li bët. mais man je suis quitte avec ma conscience vraiment. Hmm. y a pas de problème je je n'en parle plus. et franchement ma pudeur même ne me permet plus d'en parler quoi. franchement loolu c' est des choses yoo xam ne vraiment on m'a interdit d'en communiquer quoi. dañ ma ko tere. dañ ma ko tere sax man far. voilà pour mu bañ ci wax. Euh, respecté nañu sa position. je respecte tout le monde. voilà et je remercie tout le monde. comme ni ko olof di waxee baal nga àq ñëpp baax na yàlla baax na ko rek laay wax. xam nga boo nee baal nga àq ñëpp. non baal dafa mel dañ la tooñ. non loolu dañ ne lépp la ñuy bàyyi ci loxo suñu borom. c'est-à-dire àdduna ku nekk xam nga sa bopp man xam naa aar naa. parce que jaaxaloon na ma li nga. aar naa sama bopp li nga servir gens. waaw sama bopp sa xam-xam màcc. Eh, yoon ñu lay ñu lay tuumal wala. Mhm. dama ne je suis interdit boo pare naa ci quoi. <laughs> tak xam nga lu tax nag te mbir boobu te sax dak sore tax mu ñëpp di ci wax mooy major waa gendarme euh, gendarme loolu sax du mu duñ euh, ci wax parce que euh, wax bu bare rek indi indi interprétation ce n'est plus la peine donc major est là devant vous soo may ñibbi nga may ma jënd café c'est tout. <laughs> maanaam pour wane ne 28 milliards yi yoroo. voilà vraiment. 28 milliards yi lu ma jëndee café ak suukar te yàlla yàlla def jàmm. amiin yàlla yàlla. ma bàyyi la nga tàggatoo mhm. li may tàggatoo mooy leen rek. Mhm. pour que le pays la marche il faut que Sénégalais yi conscient que leen yore buñ leen gore. Sénégalais nañ def attention magal bu leen gën a gore ñetti fan yi nekk ci avion loolu bànneexam Amadou Ba bi ñu jël am na lu mu dundee am na lu mu teddee ci dëkk bi comme ni ko daam di saboté fu ne mu dem di ñàkkal boppam fayda di toog di wax ku ne koo xam ne boo bëggoon gis war nga ñaan audience nga xam ne c'est un Sénégalais qui se sacrifie sur la libération de Pape Alé Niang également waaw libéré nañ ko Pape Alé alhamdulilah mhm. xam nga journal moom yéen yéen suñuy gaay mhm. gaay seen liggéey ko laaj da di bëgg information bu ne mhm. malheureusement nag des noonu la il faut mu am faute il faut mu am problème mais <laughs> nga xam ne moom it mooy Pape Alé mm. nay defar aussi rek quoi Pape Alé loolu laa koy wax ne ko sa grandé na. del defar bul nangu ànd ak kenn xam nga projet rek bul nangu jàppale kenn bul ànd kenn xam nga yéen bu dee yàlla dafa xam ne dafa moo tax ngeen am problème xam ngeen yàlla bu leen mayee sutura ngeen mel ni malaaka ci kaw suuf di wax di wax mais da ngeen di jël en compte ba lu ngeen di wax bu leen lor kenn bu leen jàppale kenn parce que journaliste moom boo xasee ba jàppale nit rek acharné wu ci rek problème day am waaw da ngeen di éviter loolu c'est-à-dire euh, juste Sénégal fi dafa dafa dafa toll ci moment yoo xam ne il faut informer juste et équitable. Mm. voilà il faut informer juste équitable parce que dama am ku mel ni Pape mais des fois il est intelligent gis nga Pape. buy développé sa xarit la buy développé gis nga buy. <laughs> mais bi ñu déggee keroog nii am na liberté provisoire Pape Alé. non je suis content ñëpp dañ ko ñëpp on est content parce que. Ah, parce que ça ça mm-hmm. mais Pape Alé son frère est le directeur du budget du Sénégal. frère am boobu ñoom ñoo bokk bokk lépp même boo jàppee Pape Ali sax dana mën a liggéey normal y a des dégâts Sénégal loo fi def suba ak ngoon day jéem a def lu rafet di wax lu rafet éviter di lor kenn jaru ko. gis nga lii dugg nii di wax nii di réel réel ku nekk di wax di wax gauche droite barki Nabil Moustapha danañu rattrapé. mais xeex bi jeexagul de ñu tas ko. mais mun naa la wax dama. noonu yooyu lañ bëgg. mais maanaam gis nga daa wax la benn secret dossier bi ba dara lu ko taxal. gis nga ñun ñii ñëpp di réel réel ci réew bu ñu amul sens duñ ko fekk. Mhm. lu leer la. c'est important en ko fekk. na ku nekk di wax rek ñuy def gis nga am ëllëg. bis bu ñu ko créé ñun ñi ñëppay perte imagine nga jéggi sa jabar ak doo leen tal di ñu rey leen nga jéggi leen imagine moo xam ne imagine Sénégal tey man bay daw di ñibbi mbaa yow ngay daw. xam naa ñu ànd boori bool sax parce que mais imagine tout ça. Mhm. Sénégal dañoo war a xool li am ak leen yàlla may. Mhm. il n'a qu'à faire doucement sur le plan politique. nañ ci génne affaire sëriñ yi. faut qu'on régularise ça. D'accord. Parce que le, le baaxu ci réew mm-hmm. ça nous met en discorde ça nous met en sens dessus sens dessus finalement on risque de compromettre notre sécurité intérieure. am na solo sa a été plaisir recevoir le major ma lay ñaanal jàmm di la remercier ci wuy si bi di remercier également waa régie ci liggéey bu am solo bi bijou ah, dégg naa bijou ki nga xamante ne moo di ah, vraiment liggéey bi set na ah, te it na di remercier également. la rédaction de Sénégal 7 ak ñëpp ñi nga xamante ne saa su ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi demee nag incha allah di jox dig daje Sénégal VST ak Khadim Gadiaga di responsable politique foofu ca Parcelles Assainies euh, bokk ci jege ñaale ak si homme de confiance yu Amadou Ba euh, premier ministre dañ ko dal fii demain ngir waxtaane li gën a fës ci actualité bi euh, bu leen ko kenn nettali d'ici là portez-vous bien jaa ngeen